yow madame mbakke yow laa wax fanweeri junni yi nga lekk tëdd sa kër mënoon ngaa ñëw génn ko ak ak maa Anta Mbaw ak maam Ken Dieng li ngeen lekk bu ngeen doonoon gor di ngeen ñëw génne ko ndax Ibra Sall mi ngeen ko lekkandool génne na wàllam moon ngeen a ñëw fii génne seen wàll moo tax ngeen di miixan miixari di yollu yollu lekk yomb yombi nangu leen feejaar jaar yéen yéen a daaneel Macky Sall du da ngeen doon bubboo ne yéen a gañe yéen a gañe ngeen Macky Sall nag li ngeen wan noonu waroon ngeen ñëw fii génne ko junni yu leen joxe nak man asugay kàttan ma ca la may suudu lii <laughs> bu ngeen amoon ngor mbaa déedéet ci góor di daw ci seen yéen yaram bii buñ leen woowee du ngeen ñëw